nee nañu bu ñu nee nangam teggin la kay sàmmoonteeg moom day raw lool ka sàmmoontewul ak moom ba ci zahir sax ak ndax bu ñu nee jublu xibla teggin la ba addis ba wax ne akramul majaalisi mastuqbila bihil xibla jataay ba gën a tedd ci jataay yi mooy ba nga xam ne kooko daa toog jublu xibla ñu wax ne it waliyu yàlla yi may fatxu rek day fekk mu jublu xibla képp ku am fatxu rek ba ko yàlla yi defal daa fekk mu jublu xibla ñu ne nag fi mu tollu nii sàmm teggiinu foo toog jublu xibla rek day feeñ lool ci bu ñaar yaman képp lu ñuy def kenn ka di sàmmoonteeg loolu kenn ka bañ a sàmmoonteeg moom dañ koy misaale waajoo xam ne daa amoon ñaari doomam di leen jàngal alquran te ñaari doom ña ñoo yemoon képp mënuñu ne kee mu ëppale kee xel mbaa dara waaye kenn ka bu daa jàng danaa jublu xibla kenn ka bu dee jàng du jublu xibla waaye ka nga xam ne bu ma saar jàng day jublu xibla njëkk naa mokkale ka ca des am at waxuwa moom teggiin xismaani ñaari xaaj la la da daymaani fa at daymaani adabu zahirin teggiini zahir maxal insaani ànd ak nit wa adabul baatini ak teggiini biir ma rabbil wara ànd ak buurub mbindeef yi at daymaani daa wax ne teggiin dañ koy xaaj ñaari xaaj teggin bu fés mooy teggin bi nga xam ne nit ki da ko war a sàmmoonte digganteem ak moroomam nitam ak tegginu biir muy teggin boo xam ne nit ki da koy sàmmoonte digganteem ak boroomam tegginu biir mooy lu mel ne féetale mbiram yàlla bañ a gees lu may moom ak la ko yàlla cërale doo ko sëkk xolam sedd ca ak lu mu def rekk mu neex ko ak bañ a tànnal boppam te lu ko yàlla tànnal rek mu jàpp ne loolaa gën ci moom ak sopp yàlla ba mu gënal ko lu ne xeet teggin yooyu mooy teggini biir wayet baxu dana topp albaatina aji nëbbu ja maa la nga xam ne xadd zahara feeñ na nee na nag rafetuk teggini bitt yi day topp rek ci rafetuk teggini biir maanaam rafetuk teggini biir te mooy rafet teggin digganteem ak boroomam mooy jiitu su xësee rafet rekk teggini biti yi daldi rafet kon jaam bi rafetal ga muy rafetal teggin digganteem ak boroomam muy teggini biir yi mooy tax teggini bitteem muy teggin yi muy jëflanteeg ay moroomi doomi aadamaam rafet ñoom itam rafetal teggiin digganteem ak moroomam muy doomi aadama yi baax na lool sax waaye nag la ci gën rek fekk la ko lal ca biir muy sàmmoonteeg teggiin digganteem ak yàlla boroomam faxudda limeef na min zaahiri yi ci aji feeñam ja xusnul xuluqi rafet jikko moom misluhu am kemam la alxayaaw kersa fastax yi na nga rus te fuq kon nga kawe dafa bëgg a jëkk waññi yenn teggiini bitt yi maanaam teggiini fés mu war a sàmmoonteeg ñoom ba ci jëkk nag nee na mooy rafet jikko rafet jikko nag waxan nañ ca lu yaatoo yaatu ca gannaaw bokk na ci teggini bitt yi am kersa bu addis ba nee nag alxayaau kulluhu laa yati illa bi xayr maanaam kersa daal lépp rek lu baax lay indi ak ba mu ne ida araada allahu bi xabdin xalaakan nazaa minhu alxayaa su yàlla namee ci jaam alkande da koy xañ kersa ba dee dindee ci moom kersa du amati kersa ku amul kersa rek yàlla daa namm ci moom alkane ak ba mu ne moom addis ba xuluqullaahil xayaa jikko yàlla day mooy kersa ak li ñu ne wa kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ashadda xayaan min alxadraai fi xidriha wala yutbitu wala wala yuthabbitu basarahu fi wajhi ahadin xayaan yonante bi daa bari woon kersa loolu ba nga xamee ne moo ëpp kersa ab njege maar bu nekk ci ab néegam mësta génn ba du faral di jaxasoo kenn la muy bari bari kersa yonante bee ko ëppoon kersa àggoon na ci mënta xool kenn rek ne jàkk di wéy wax yooyu yëpp boo ko seetloo day tagg kersa mel na kersa lépp rek aw yiw la waaye nag kersa gu tegu ci yoon lañ wax kersa dañu tagg mooy kersa gu muy taxa moytu lépp lu bon di ko jëme ci lépp lu baax waaye kersa goo xam ne da ko yóbbu ci bàyyi lu baax ni ki kersa gu tax mu rusa yëkkati kàddoom noddu wala kersa gu tax mu rusa yëkkati kàddoom tudd yàlla mbaa lu ko nuru mbaa kersa gu tax du digle lu baax du aaye lu bon ndax rus rekk wala kersa gu ko yóbbee def lu yàlla bëggut ni ki ni ki kersa tax mu joxante jigéen loxo mbaa daal dara lu bokk ci xeeti civilisation yi nga xam ne tubaab yee ko indi rek te yoon aaye ko bu demee fa waa taax ya day rus ba faaw mu fekk leen ci seen civilisation te xam ne ne loola dara baaxu ca ak bari kersa ba la mu umpale ci mbirum diineem dana ko rusa laaj kon ci gàttal gépp kersa goo xam ne yóbbu na ko ci def lu baaxut ci lislaam mbaa gépp kersa gu ko tax a bàyyi lu baax ci lislaam goo kersa ak rëy la du kersa dañ koy tuddee alxayaawu at tabiiyu wa hakaza niki nii tayaamunun ndeyjooru wa tasmiyatun ak wax bismillah ay li mu ci namm fi mahallin ci béréb li kilayhima ñeel képp ci ñoom ñaar idriya na nga ko xam bokk na ci tegg yi ni fés fu ñu bëggee nga jiital fa ndeyjoor mbaa nga topp fa ndeyjoor rekk nga jiital fa ndeyjoor topp fa ndeyjoor te bokk na ca nag bépp béréb bu ñuy ormaal ni ki jàkk rekk dañoo taamu booy dugg nga njëkkee sa tànkum ndeyjoor dañuy sopp booy dugg jiital sa tànkub ndeyjoor booy génn nag njëkk a génne sa tànkub càmmooñ muy safaanu béréb boo xam ne lu bu ñuy teral ni ki wanag moom safaan bala dañoo sopp booy dugg sa tànkub càmmooñ ngay jiital booy génn nag njëkk a génne sa bopp ndeyjoor mboolem nag xeeti jaamu yàlla yi muy sangu muy tiim muy jàpp fu ci nekk rek taamu nañ la am ndeyjoor ak càmmooñ mu jëkke ndeyjoor ba mujje càmmooñ ba ba tey taamu nañu bu dee sol ay yére walla ay dàll ak xeet yooyu ñuy sol muy njëkk sol ndeyjoor mujje sol càmmooñ bu dee summi nag njëkk summi càmmooñ mujj summi ndeyjoor tudd ji turu yàlla wax bismillaahi moom dafa bari lool fu ñu ko yoonale am na fu mu war sax moom mooy bu dee rendi te fàttewu ko moom bu ko tayee te waxul bismillaahi wax ja gën a wóor mooy ci yoonu Maalik kenn du ko lekk bu fekkee fàttee tax nag moom mu rendi te waxul bismillaahi des na ko lekk bokk na ci fañ ko yoonale nag booy tàmbali jàpp ak booy tàmbali sangu ak booy tàmbali tiim yépp sopp nañ ci wax bismillahi ak boy lekk ak boy naan ak boy war daaba mbaa oto mbaa leneen yooyu yépp daal dañoo bari lool des na ko tudd ci téere fiq yi di ko tegale muy bari lool lool yoo xam ne rek lu mu ci mën doon bëgg nañ nga tudd ca turu yàlla danañ ko taamu lool nag boo agsee di dugg sa néeg ndax dañoo wax ne su duggee sa néeg wax bismillahi ba ngay lekk itam nga wax bismillahi bu dee ngoona seytaan day wax ay gaayam ne leen nan dem fii mënu fi am ab reer ak mënu fi am banaan waaye nag bu agsee ci ngoon gi dugg rek ci néegam te waxul bismillahi di lekk itam waxul bismillahi seytaane day wax ay gaayam ne leen ayca fii day daanu fi am reer daanu fi am banaan toog leen nu reer te fanaan fi wa adabul akli ak teggiini lekk bokk na ci teggin yu fés yi booy lekk ak booy naan nga sàmmoon teeg teggin yi nga xam ne ñoo aju ci lekk ak naan bokk na ci teggin lekk ak naan nag booy tàmbali wax bismillahi boo ko fàttee saa yoo ko fàttalikoo rek nga daal di koy wax ne bismillahi awwalahu wa axira boo lekkee ba noppi wala boo naanee ba noppi itam nga sant yàlla ni alhamdulillahi rabbil alamin te it booy lekk ak booy naan nga defe ko ndeyjoor bañ koo defe càmmooñ te it boo lekkee ba noppi nga mar say baaraam bañ a jekki-jekki daal di koy raxas te maroo ko dañoo bëgg nag booy mar baaraam yi nga njëkk a mar baaraamu sangaleeñ teg ca baaraamu diggatu teg ca baaraamu dëy door a ñëw nag ci baaraamu ndombur mujjee baaraamu sànnikaay bokk na ci teggin lekk ak naan def biiram ñetti xaaj benn xaaj bi mu féetale ko lekk benn xaaj bi mu féetale ko naan benn xaaj bi mu bàyyi ko di ko noyyee bañ a regg bu dee nag koo xam ne regg baax na ci moom regg ga wàññiwul dara mel ne kuy nàmpal mën nay regg ab surga bu ñuy liggéeyloo mën nay regg kuy jàng baa muy jàngale dañuy jàpp ne xiif baax na ci moom waaye su fekkee ne bu xiifee du man jàng ma mbaa jàngale ma kon mën naa regg kuy liggéeyee xeeti métti yu metti metti mel ni bay ba tey kooku mën naa regg sopp nañ booy lekkandoog ñoo xam ne du sa waa kër doom rek ci sa kanam bañ a weesu sa kanam su fekkee ne itam ñam way yéene ko bokk nga am ci àq na ca ñooña ami àq te ñam wa du leen ëpp kon kenn ku ne day jéem a yemale ab tibam ak tibub moroomam ndax bu dee tibb lu ëpp la ñooñee tibb xëy na mu yóbbu àq yi jaambur sopp nañu nga bañ di xool keneen koo bokkal di lekk yam rek ci sa bopp bañ a xool keneen sopp nañu boo tibbee ab tib nga sàqami ko bu baax ba wanaasu ko dooru tibaat beneen ndax loolu mooy tax nga yëg bànneexu ñam wi dollee sant yàlla booy naan itam bëgg nañ nga def góox yu ndaw di ko muuc ndànk-ndànk te bañ a def liy wax gëndëx li góox góox yu mag a mag sopp nañu boo lekkee ba noppi mbaa nga naan loo xam dafa am xeetu jeexiti diw nga galaxndiku bu baax a baax bu aajowoo sekritu wala jël borosu nga def ko bu baax a baax ndax dañoo wax ne malaaka yi dañuy taqoo giw ñu ab jaam buy tudd yàlla te bu fekkee gimiñ nga naqari xet nag da leen di lor kon na sàmm ormay malaaka yi ba saa yu lekkee ba noppi rek bañ a bàyyi dara ci jeexiti ñam muy des ci gimiñam sopp nañu bu dee lekk mu toog ni muy toogee bu dee taaya ci julli te bañ a farankalaayu rawante na soonu lekk yu soonu moom dañ koy aaye lool ndax tey nuru ak rëy ak ñàkk ormal ak ñàkk sant xéewal gi ko yàlla xéewale buy lekk yàpp taamu nañ mu di ko seeñu mooy yàpp wi mu di ko lekki ak i bëñam tey moytu seeñu ab yax ba noppi tegaat ko ca ndab la lépp loo xam ne rek bu ko defee am na ku mbokk ak lekk dana ko seexlu ni ki tifli wala xaaxtaniku wala di lekk muy delluwaat ci ndab la yu mel noonu yëpp na koy moytu su fekkee ne itam ñam wa moo ñam ko bokkal ñoo ci yemoo képp ëpp lewu leen ca du sañ a jekki-jekki tibb ca may keneen ndax kon ma ngay joxewaale àqi jaambur bu ci yëpp àndee nag mën na ko taamu nañ biñ dee lekk ba tey ñuy waxtaani waxtaanu gaa yu baax yi la tàmbalee ca yonante ya ak saxaaba ya ak nit ñu baax ñi nga xam ñoo topp seen gannaaw li ñu waxoon nag ci bu lekkee ba noppi mar baaraam yi bala mu ko raxas lu mat a fonk la lool la tax ñu wax ko mooy normal jëmmi ñaw yi bañ koo yàq ndax loolee muy raxasaale te maru ko ak yàq la te it su maree loxoom ngir bañ a yàq loolee desoon ci loxoom dañuy xam ne kon màggal na xéwalu yàlla te xéwalu yàlla soo ko màggalee rek mu daal lay yokk yokk bu la yàlla xéwalee nag te santoo xéwal ga soo tuut dana ko nangu ba noppi te gannaaw ba nag fexe ba mu delloosi ko day jafe sopp nañu lool bu lekkee ba noppi mu ñëdd ndab la ba mu set bañ caa bàyyi dara addis ba nee na ndab li day sàkku luñ jëgal ka nga xam ne moo ko doon ñëdd ba tey sopp nañu lool lu rot ca ñam wa rek mu for ko lekk bañ ba sax nee nañu for ñam wa nga xam ne moo rot lekk ko bañ ko wacc canug jigéen ñi àjjana yi lay doon bu ëllëgee te it nee nañu tey taxa bari wërsëg ndax dañoo seetlu ne képp koo xam ne daal du xeeb dara dara ci li ko yàlla xéwale du ca bàyyi dara mu yàqu ci coobareem faaw rek yàlla day yaatal wërsëgam sopp nañu it bu dee naan gu ñuy joxlante su naanee ba noppi mu njëkk a jox ko féete ndeyjooram mujj jox ko ko féete càmmooñ doonte sax ka nekk ca ndeyjooram day gone ka nekk ca càmmooñam di magit du tee ñu sopp rek mu njëkk a jox ko féete ndeyjooram tey gone mujj jox mag ña féete ca càmmooñam ba tey taamooñu ëf aw ñam maanaam di ko wal ndax bëgg mu sedd bu tàngee bàyyi rekk ba mu sedd mbaa nga uppe ko uppukaay te bañ koo wal ci sa gimiñ ba tey it boo bindee mu tooy ñu ni mu tooy ma taamu nañ ko ca suuy suuf waaye taamuñ ko ko ëf di wax nañ ne sax suuy ca suuf moom dana tax la taxan ngay bind bu dee aajo mu faju dañuy wax naa sax maa xaaba kitaabun turriba wa misluhu am kemam la asiwaaku soccu mu wakkadan mbir mu muy lu ñu fedd li xinda salaati ka fas ak julli fa xaaka naga jàpp bokk na ci teggin yu fés yi sàmmonteeg soccu soccu waxtu wu ne dañu ko taamu lool lool rawante na nag boo dee bëgg a julli ak booy bëgg a jàng alxuraan waxtu yi nga xam ci lañ gën a taamoo soccu daal yu bari la waaye booy doore yow sa gimiñ soppiku ak boo noppee lu yàgg yàgg waxoo defoo dara ba sa gémmiñ soppiku ak boo lekkee ba noppi ak boo waxee wax ju bari ba tax sa gémmiñ mel dafa soppiku yépp danañ ca taamu lool lool soccu bu ñu nee soccu bokk na ci ngënee li jàpp itam su fekkee ne julli daa jot te fekk nga ameem jàpp te ba nga jàppee léegi yàgg na danañ taamu nga soccuwaat ngir julli ga degam nër laa jàppaat na nga yeesal soccu ga moom ndax julli ga ngay bëgg a julli addis ba nee na salaatun bi siwaakin afdalu min sabaina salaatan bila siwaakin maanaam julli koo xam ne soccu nga laata nga koy def moo gën julli koo xam ne soccu woo laata nga koy def te gënee na ko juróom-ñaar fukki yoon ku ñu wax kaabu nee na man ahabba an yuhibbahullah fal yukthir min as-siwaaki ku bëgg yàlla sopp ko nay bari la soccu hadis ba nee na jaam bi bu soccoo ba àggal taxaw di julli malaaka day taxaw fi gannaawam di déglu la muy jàng ca julli ga waaye day gën di ko jege si di ko jege si ba mujj moom malaaka mi mu dëpp gémmiñam ci gémmiñu waa ji julli lu génn ci gémmiñam ci alxuraan rek day dem ba dugg ci biirub malaaka ma mooy innal xabda ida tasawwaka tumma qaama yusalli qaama almalaku xalfa fa yasmacu alqiraata fa yadnu minhu xataa yadaha faahu xala fiihi فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك ab socc nag bëgguñu mu gudd ba ëpp lu mu gudd gudd na tolloo ko sebre mbaa boog na ko yées waaye daal bu mu ëpp sebre ndax su guddee ba ëpp rek seytaan da cay tong nee nañu sopp nañu bu dee socc mu njëkk a socc wetuk ndeyjooram door a socc wetuk càmmooñam te it bu dee tàmbalee socc mu wax bismillahi lam njëkk a socc ci ay lor na ko wan nee nañu mën naa faj jépp jàngoro waaye nag loolee mu njëkk a socc ba wan ko lu ca toppaat na ko yàbbi ndax bu ko yàbbi wut mën na koo indil jax-jaxi xel kazaliki ni almusaafaxatu saafuxante bokk na ci teggin yi fés saafuxante maanaam lu ñoo joxante loxo kenn ku ne jox sa téngal ndeyjoor sa moroom kenn ku ne jàpp bu dëgër bu baax dañoo sopp nag bu ñu saafuxante joxante loxo kenn ku ne téye sa loxol moroom ab diir ñu nuyoo jàmmante door a bàyyante loxo waaye nag joxante loxo gu gaaw a gaaw dañ koo sib te it góor ak góor te ñu ñaar jullit lay sopp ñu joxante loxo waaye ak jigéen ak góor moom bu fekkee ne araamante wuñu nga xam ne sëy mën naa dox seen diggante te sëy doxul seen diggante kon araam na ñu joxante loxo ba tey ab jullit du jox ab yéefar loxo addis ba nee na ñaari jaam bu ñu soppantee ci yàlla bañ tasee joxantey loxo julli ci man yonante bi faw rekk yàlla jéggal leen seeni bàkkaar la ci jëkk ak la ci mujj bala ñoo tàggoo mooy ma min xabdayni mutaxaabayni fillahi istaqbala ahaduhuma saaxibahu fa yusaafixuhu wa yusalliyaani calaya illaa lam yaftariqaa xataa tuxfara dunuubuhuma maa taqaddama minha wa maa taaxar anas nee na yonent bi bu masaa jàpp loxol nit balaa bàyyi rek dana ñaan allahumma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina xazaaba annaar mooy waxan anasin qaala ما أخذ رسول الله يد رجل فيفارقه حتى قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بتي أديس بنينا إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر الله لهما ñaar julit biñ tasee saafu hante sant yàlla sàkku mu jégal leen yàlla dal leen di jégal wat tilawatu ak jàng alquran bokk na ci teggi ni zahir yi bari la jàng alquran lu mu gën a bari rek gën a baax weesoon nañu buntu ba ñuy waxe mbirum alquran ak la ca aju mën nga caa dellu dégluwaat ko fàttaliku ko ifsha'uka ak sag siiwal assalaama nuyoo ba siiwal ak nuyoo mooy maasale nuyu ñëpp ka nga xam ak ka nga xamut koo nuyu itam bu ngeen tàggoo lu mu gàtt gàtt bu ngeen tasewaatee nga dellu ko nuyuwaat mel ni sax boo nuyoontee kenn dem dikkaat rek fekk ko du tee nga nuyuwaat ko moom daal saa yoo ko nuyoo am dox sa digganteeg moom rek bu ngeen tasewaatee lu mu gàtt gàtt na nga ko nuyuwaat addis ba nee na xayrul islaami an tutahima tahaama wa taqra assalaama ala man arafta wa man lam taarif saxaaba yi dañoo fonkoon lool nuyoo boobu ba nga xam ne buñ àndee dem ba yàgg ak garab sax tàggale leen mba ab jànj buñ weesoo garab ga mbaa jànj ba ba sësaloo waat daldi nuyoonte waat dañoo bëgg nag booy nuyoo nga yëkkati sa kàddu ba jàpp ne ki ngay nuyu dégg na ko booy sikki sàkka dégg na ko mu dégg ko nga waxaat ko bu wóor ba jàpp ne dégg na ko bu dee mbooloo itam bëgguñu nga nuyu ñenn ña bàyyi ñenn ña ndax jëmi nuyoo ci boppam ak miinante akuk jàppante akuk soppante lañ ci jublu te boo nuyoo ñenn ña bàyyi ñenn ña ña nga nuyu wut xëy na ñu jàppal la dara defe ne dara la wa saxaawatu ak tabe bokk na ci teg yi nuy fës yi tabe ci saw ñaq ak ci sa alal lépp loo mën a joxe ci sa alal ak ci saw ñaq rek nga joxe ko te yàlla tax wa hakasa niki nii iyaadatul maridi seeti aji tawat bokk na ci teg yi ni nga xam ne yu fës la ab jullit bu tawat nga dem seeti ko waaye nag am na yett yoo xam ne addis ba nee na du jar ñu cay seeti kenn mooy bëñ buy metti ak wànnen ak taab addis ba dane talaasun laa wuhaadu min hunna ab dirsu war ramadu wad dama miilu seeti ku tawat dafa bari ay ngëneel ba addis ba wax ne ku seeti ku tawat daal booy dem da ngay mel ne kuy xuus ci yërmande maanaam mel ne yërmande day am ndox mu baree bari ngay xuus ci biir nag di dem soo demee ba toog fa ka tawat day mel ne dangaa nuur ci biir yërmande ndox mi féeta la ci wet gu ne mooy man haada maridan lam yazal yaxuudu fi rahma fa ida jalasa indahun xamasa fiiha ba tey ibnu xamar jële na ci yonent bi nee na mu ne ku seeti ku tawat danga mel ne ku wóor ab bis ci yoonu yàlla te benn bis ba day taxaw taxawaayu juróom-ñaari téeméeri bis ba tey ku topp ak janaasa maanaam ku gunge ab néew day mel ne ku wóor ab bis ci yoonu yàlla te bis ba day toll ne juróom-ñaari téeméeri bis mooy man haada maridan fa ka annama saama yawman fi sabilillahi taala al yawmu bi sabhi mi'ati yawm wa man tabiha janazatan fa ka annama saama yawman fi sabilillah al yawmu bi sabhi mi'ati yawm nee nañ am na ku dikkan ci umu darda di ko ko jàmbat ab xolam bu wow mu ne ko xol bu wow day mooy jàngoro ci gën a rëy ci xeeti jàngoro yi waaye nag boo ko bëggee faj demal seeti ku tawat gunge itam ab néew naka mu ko def rek la mu yëgan ci boppam ci xol bu wow dal deñ mu ñëwaat ne ko yal na la yàlla fay aw yiw li nga ma digalan def naa ko waaye laa doon faj faju na man xaada maridan lam yaxdur ajaluhu fa qaala lahu as'alullah alazim rabbal xarshil azim an yashfiyaka saban fa inna allaha taala yashfih ku seeti ku tawat koo xam ne ab appam ak séegut su ko ñaanalee baat yi as'alullah alazim rabbal harshil azim ay yashfiyaka maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi borom aras mu tedd mi maa ngi koy ñaan mu saafara la mu wax ko juróom-yaari yoon kookee faw yàlla saafara ko